salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi nuyu mbokki alquran sunna di leen ziar ni ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiq defal ñu ko am na kàddu yi nga xam ne moom laa nar yëkkati te muy doon kàddu yu gàtt mën nañ koo tudd kàddu ay kàddu laayante biir wala kàddu jàppalante ci wàllu diine wala mën nañ ko tudd ay kàddu leeral leeral nag li ko waral mooy ci fan yu weesu dam suñu benn mbokk bu yëkkati ci ay kàddu ci émission ba ñu déggee kàddu yooyu ñu daal di gis ne kàddu yi de nekkul kàddu ñu mën a war a bàyyi mu tasaaroo te duñ ci indi leeral ndax kàddu yu wuteeg li ñu xam euh, ci yoon bi nga xam ne mooy yoonu ahlu sunnat wal ci jàkkaarloog yi jàkkaarloog ñii di ahlul bidaa ba ñu jëlee ay kàddu daal di koy yëkkati tontu mbokk woowu mbokk yu bari bari daal di réagir am na ñoo xam ne dañ ñoo jël sunu xaas am na ñoo xam ne sax dañoo jël sunu numéro waaye xamuñu leen woon jokkuñu am na ñoo xam ne fii lañu réagir am na ñoo xam ne maa ngi gis seeni réaction ci chaîne YouTube ba dama la dajalee réaction yëpp déglu ku nekk danga xam ne moom nga moom nga yëkkati ba seetlu ne wax yu bari ay wax yoo xam ne wax yu nit mën a dégg la wax yi yoo xam ne wax yu te wax yoo xam ne nit mënu koo dégg du ci bàyyi te du bàyyi xel koo xam dëgg la it dëgg moo la yitteel la chaque da nga koy jël en considération loolu di gën a firndeel li nga xam ne mooy mooy tàqale yoon wii di yoonu ahlu sunna nga xam ne nekkut yoonu bàyyi kenn yooyu moom kenn mooy lislaam li ko wuteeg yeneen yoon yi xam dañ sos te la koy ca la mu tabaxu rek mooy bànneexu bakkan ak gis-gisunu ay ay nit li ko wutele mooy yoon bi yoon ahlu sunna ñu amuñu mujaamala lii di dëgg eh, mbirum yàlla la lii di lislaam yëfi borom bi la du yëfi kenn moo tax yëfi borom bi nag kenn mënu cee defal kenn teraanga fekk ne bépp borom xel di nga xam ne loo moomut moom mënoo koo yàqale loo mumut moom mënoo cee joxe ay teraanga nga xam ne ne ahlu sunna xam nañ ñoom dëgg ka ñu nekk ñoom mumuñu ko nekkul lu ñu doon ne seeni i baay ak seen maam nekkoon sax bal lu doon nante dëggug yàlla la moo tax képp ku ko wàcc rek benn taxawaay lañu am ci yow moom wàcc gi nga ko wàcc ci ab benn yoon la doon moo xam ci pas-pas la moo xam ci ay jaamu yàlla moo xam ci jikko la moo da leen gis na ñoom nañuy tontoo ña leen sori lool ci noonu lañuy ñuy tontoo a nga xam ñoo leen jege moo tax nasaax yooyu noonu mu kontaan ci loolu dafay firnde loolu ah mooy ne lu mu la jege jege jege ah defin soo ko defee bii su ma gisee ne wàcc nga ci li nga xam ne mooy yoon bi doon ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoon ba ñu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, dinaa la ci dinaa ci laay biir loolu di firndeel rek waxi yàlla ja ba muy waat ci naan wal asr ان الانسان لفي خسر ديوت بروم ولا بوك دي نيب نيغي تي اك برتانغ واي مود استثناء داف لي دي اكسبسيون مو سيبي تي نيل ولا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مو نيغا خامن نيو گم بالا دادي جيف اشك دي گم گوكو ميغي بازي و تي خم خم خم خم بوب لا تي تك نك مو جيف ا با نك با ني ديفه لولو باري نيوم dañuy digg waxtu waasoo bi xaq dañuy digglante li nga xam ne seen diir seen biir dañuy diggante dëgg di diggante nga xam ne mooy muñ loolu la cheikh mohamad abdul wahab ci usul salaasa wax naan al ilmu qabla al qawli wal amal mooy nit ki day xam ba pare doogo doogo doogo jëf su jëfee ba pare nag beneen mbir ba ca topp mooy ad daawatu ilay mooy woote ci mbir ba mu xam jëfe ko ba ca topp as sabru ala al ada fii te aaya bi ab dalil la ci te loolu mooy yoon ahlu sunna ñoom xam-xam ci lañuy dox lañu xam lañ koy jëfee suñ ko jëfee pare nag yéene ko nit ñi woo leen ca ba pare digg leen diggante seen biir nag ñuy dégg ñuy kenn ku nekk di dénk sa moroom dëgg di ko dénk muñ ndaxte yoon la boo xam ne la chaque ne ko ci soobu eh, da nga aajowoo lu yaatu yaatu ci ci ci muñ muñ nag suñ ko waxee boo xam ne dañ koy faral di xaaj ci ñett mooy muñ daal di ngir def li yàlla subhanahu wa digle muñ ngir bàyyi li yàlla subhanahu wa tere muñ naam ci lor yi nga xam ne mooy tegu sa tegu sa kaw ñetti mu ñooyu yëpp la ci woote ci yàlla daal soxla ngir mu mën a naam uh, jëfe ngir mu mën a sax jàng ba xam balaa muy jëfe uh, tàmbalee woote la fekk ne foog mu mën a dajale ñetti mbir yooyu yëpp ngir mën a réussir li nga xam ne moom la ñu moom la ci la ñuy dox mooy seen diggante amul mujaamala ku wàcc bi yoon ne la koy dan la koy wax loolu moo tax ñu lu bu baax kàddu yi nga xam ne mbokk yu bari yëkkat nañ ko daal ñu koy daal koy wax te ñu xamal leen ne la fekk ne loolu kàddu yi dugg ci nopp la ñëw ci xol te dañ koy jël jëfe ko waaye soo seetee kàddu yi ñi nga xam ne ñooñu ñoo ñëw daal di ñuy laay biir yëpp euh, ma seetlu ci mbir yi. kon bu ma jëlee réaction yépp boole ko dama gis ne mën naa koo xaaj ci ñetti ñetti mbir mooy mbokk yoo xam ne dañuy rafetloo li nga xam ne mooy kàddu yooyu nga xam ne moom laa yëkkati woon jëmal ko ci mbokk moomu te jubluwaay ba rek di laajate biir ak leeral dëgg. am mbokk yoo xam ne eh, rafet nañ jëmmi tontu mbokk moomu ca kaw waaye nag rafet lu ñu na mu amee mooy defin ba ñu gis ne am na neneen nu mu waroon a demee am yeneen bokk yoon ñoom saa aslan lañu gis mooy gis ñu woon ne noonu la waroon demee dañu gis woon la war rek mooy su fekkee ne juumte am na ah, mooy daal waxtaan ak euh, mbokk ma ko def ci suuf te loolu mooy li xam ne mooy mooy defar am mbokk yoo xam ne ñoom lañu gis sax mooy aslan mbokk wax ja ak njumti sa ca nekkoon nag bañ cay ba mu di tontu wala soo njumte nekkee sax nekkoon njumte gu gu rëy gu jar a tontu loolu yëpp soo ko boolee mooy li ma njëkk a tudd mooy wax yi nga xam ne wax yu jub dañ jàpp ne wax yu jub la fekk ne loolu ñuy gërëm mbokk yu baax a baax ne loolu lu ñu bàyyi xel la te lu ñuy jël en considération la waaye ci biir wax yi am mbir yoo xam ne gis nañ ne lu wuteeg euh, li nga xam ne mooy yoonu ahlu sunnati wal jamaa la ci ni ñuy raddee walla ci radd alal muxaalif moo tax tomb yi nga xam ne ñu yëkkati ma yenn tomb yi nga xam ne dañ ko seetlu ci biir wax ci yenn mbokk yi wala bokk yenn mbir yi nga xam mbokk yi wax nañ ko yooyu jàpp ne ak njuumte la eh, nag nag la te njuumte loolu leen ci yóbbu mooy rek eh, mën na am fàtte walla réere yenn dawaabit ya nga xam ne boloo xam ne teg nañ ko te jëlewuñu ko loolu ci alquran sunna te mu ñëw di régir ñëw di tënk li nga xam mooy rod tontu képp koo xam ne da nga yëkkati ay kàddu wala da nga àddu ci mbir yoo xam ne ci wuteeg li nga xam ne mooy ويونو القرآن هكا أك السنة رد على المخالف ما يتنطو كي نغا خمني دفا أقوتي دفا جوغي تيموم فبوو تيموم سنوهي المخالف كان تجبلو نيال هندلا تشجيت مو اي مبتدع ما كي نغا خمني موم تي بدا على نك كوك لا شك اني نكوت مو يتاخو جوك تاي لأمر كيسي كيساك تشيري المبتدع موم la ñu war moom rek mooy daal koy tontu lii de ay neenam ñu neenal ko daldi jël dëgg fésal ko loolu dañ koy def nag ngir daldi jëfe ndigalu yàlla kum yonentaam ngir daal di laaya biir mboolema ma mboolem jullit ñaareel nag mooy ab sunnit ab yi boo xam ne dafa wuteeg dëgg waaye wuteeg goom wuteeg dëgg moom la fekk ne la ko ci yóbbe muy njuumte mooy muxti an moom la shakka ne kookit dañ ko war a tontu waaye nañ koy tontee du bokk nañuy tonto li xam mooy mubtada bi ci kooku nag laa bëgg a leeral ñenn point yi nga xam gis naa yéen mbokk yi soulevé nañ ko te mu li nga xam ne mooy li te ba woo ci boroom xam-xam yi ba woo ci salafu saalix bal ba woo ci alquran ak alquran ak ak sunna الإمام البربهاري ليعطي شرح السنة قال واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين هو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لأن لا يقع أحد في بدعته فيهلك لغاني خملني جن تيون في تنياري ميرلا ويكو خملني موم دفا فك السلو waaye lam bëggoon rek mooy yiw kooku la chaque ne kenn di ko loolu ñu bàyyi xel ne kon njumte googu noonu ngir nit ñi ma ngi cee topp la fekk dafa ngi leeral ne njumte la da suñ ko leeralul rek ak nit mun na cee topp keneen ko moo xam ne koo xam ne nag dafa moom dafa entêté wu moom dafa wuteeg ñu ko jiit ña ña ko jiitoo ci ñu way ragal yàlla ya mooy dafa wuteeg yoonu salafu saaleh kooku ku réer la te day réeralaate ko ab seytaane la seytaane la boo xam ne seytaane bu mu nañ tuddee seytaane rebelle demo rebelle ci umma bi kooku dafa war cépp ko ko xam nga daal di joxoñ ko ba nit ngeen nit ñi daal di koy moytu nga daal di leeral nit ñi yoonam ba kenn du tàbbi ci bidaam kenn du tàbbi ci réer ga nga xam ne moom ca la ca la ca la ca la nekk kon ki nga xam ne moom moo moom moo juum njuumte ga daal di fés la fekk ne li ñu war jëm ci moom rafetal gi war ci moom mooy daal di koy laay biir moom fàttali ko ci loo xam ne ñu nag moom lay lay doon mooy ci secret fàttali ko ci loo xam ne keneen du kenn du kenn du yëg balaa sax ñuy ñu daal di koy tontu su fekkee ne dellu na ginnaaw ca la mu nekk daal di ñëw leeral jumte ga mu nekkoon loolu la fekk ne mooy jubluwaay ba fekkee dafa bañ nag te nekkut bañ nga nekkut réer yi lu ma ko ci yóbbu wala nekkul dafa entêté waaye nit mun naa bañ a nangu laay biir na jàpp dafa nekk ci ci sawaab su boobaa ñu daal di tas li nga xam ne mooy tontu bañ koy tontu loolu la chekk ne mooy li nga xam ne moo gën waaye li nga li yenn mbokk yi jàpp loolu mooy njuumte gi mooy ne loolu nekkul lu war nekkul waajib loolu tafaddulan la mooy mbir la nu koy def ngir rafetal ixsaan goo jëmal ci kooku waaye dañuy fàtte ne ñaari mbir moo am te ñu bari ñu wax ak man defa dañuy fàtte loolu mooy dafa am mbir boo xam ne waa ci boppam la concerné am mbir bu concerné ña ca des la concerné ña ca des moom tas na ba pare ak njuumte gu tas la pare te kenn mënatu koo xëcc lu dut ne dañoo ñëw daal di tontu wax jooju leeral la nga xam ne moo ci njuumte la te loolu waajib la loolu lu war la am leneen lu war lu nga xam ne mooy ka nga xam ne moo ca tàbbi nag moom am mbokku nga war koo biir na mu gën a rafete pour mu dellu ca mu dellu si kon soo ñëw di wax ci kaw ka nga koy jublu nekkut moom nga ca moo tax nga ngay wax waaye wax ja ca kaw su fekkoon ne moom nga ca jublu kon doo ñëw di ko wax ca kaw ña ngi ci jublu mooy ñu déglu njuumte googu te mën cee tàbbi la nga moo des nag wax ak moom ci daal di ci suuf loolu ci moom la moom lañ koy defal su fekkoon ne nag def nga loolu mu daal di eh, delli si moom ci boppam daal di koy corriger loolu mooy gën la chek loolu la di di seet loolu la ñëpp di di bëgg waaye na nekkul nekkul waajib kon jàpp ne nit ku def njuumte ci kaw balaa nga ko radd ca kaw foog nga jaar ca suuf wax ak moom loolu la chek ne njuumte la wala foog nga jokkook moom wax ak moom ba pare dëgg ko rad loolu njumte gu gu rëy la wala sax nag rawat day gën a doon njumte su fekkee nit dafa jàpp nag bal sax danga doon ñu radd ab sunnit ci kaw lañ war a def rek mooy nasixa ko ci suuf شيخ الإسلام ابن تيمية وحنان فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا من تكلم فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة رد عليه ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بباطل شيء سمتي منان ليديون يونس صالح أكبر خمخمي mais na ñoom seeni wax dañ cay taamu baat yi nga xam ne dañoo yor ay sens ay déggin yu wér yu ñu xam ci sharia dafa ñu bàyyi ci xel mooy ne te dinañ ci del ci yenn tom bi mooy ne ab salaf yu suy wax foog mu daal di sori jëfinu ahlul bida mooy wax wax ju lëndëm nga xam ne nit mën na cee déggee lu nekk ay aimatu salaf li seen yoon mooy lii ba dañuy seet te yi tàmm ñoom kàddu yi nga xam ne dafay leer nañ du am lenn rek loo xam ne ki nit ko mën a jël ja daal di koy diggee diggin bu diggin xam ci charia la moom ci ci xel la moo tax baat dañuy dañuy def lépp lu ñu mën ma jël baat yi nga xam ci ci charia moo ne ñu képp koo xam ne dafay wax ab baat wala wax joo xam ne wax jooju ab neen la caa nekk bu mu teeg alquran sunna raddu alayhi dañ lay radd képp ku wax ab baat boo xam ne baat bu ñu sos la te ñaari mun nañ ciy déggee ñaari mbir dégg leen bu baax mën nañ ciy déggee dëgg comme mën nañ ciy dégg ak neen dañuy jël askane la neen ga li waral lii nañ ci delsi mooy ne suñ ibbee baatu ku wax rek ñu ne wax ja ah mën nañ ko déggee ñaari mbir ñetti mbir ahlul bidaa fa ñuy wax lu leen neex foo leen bëggee jàppee rek ñu ne mën nañ ci déggee lii comme ni ko suufee defee moo tax ahlu sunna فلن ينتهوا كبكو وهتي وخدي وخمني يحتمل الحق والباطل نسبوه إلى البدع إذا لو لورا لون إمام أحمد هنان من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي لورا لون وهجوج دون وهجوج من تدي جنيان بلفظي بالقرآن أي الملفوظ نعم سوف سفكين واج الملفوظ لتأ لا تجبله لا شك باطل الملفوظ ما وهو يعلى sunu borom loolu xayru maxluuq su fekkee lam ci jublu nag mooy la muy utiliser mooy baat ba son ba nga xam ne ci moom la jóge loolu chakkan xaq la la mar jël daal di koy askane la bidaa mooy ixtimal ba ci nekk nga xam ne waaye ñooñu bidaa mën nañ cee jëfandu ba dëgëral ñoom lañu lañu lañu lañu nekk war ñu nekk képp ku def loolu nan kii de moom dafa ñëw tonto bida mu tonto ko bida naam dafa jël ak neen tonto ko ak li nga moy ne mooy mooy neen xaafis bi loolu la ci réew tuddé al farq bayna an nasiha wa ta'ir li di li tàqale digënté laay ak ngagne digënté laay ak gibané nee رد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكره أولئك العلماء بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويحنون عليه <coughs> فلا يكون داخلا في الغيبة بالكلية فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطئه المخالف للحق فلا عبرة بكراحة لذلك فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمولة بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته الأبد وهذا من النصيحة وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأمة المسلمين وعامتهم وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب ولا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه وإن صدر منه الاغترار بمقالته فلا حرج عليه وقد كان بعد سلف إذا بلغوا قول ينكره على القائل يقول كذب فلان ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل إلى أن قال وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردها أبلغ الرد كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم هذا كله حكم الظاهر alxames رجب rajab ni bu tënko mi wax ne lii كاد xam ne mooy tontu kàddu yi nga xam ne dañoo wopp kàddu yi nga xam nga tontu ko tontu goo xam ne dafay basé wu ci ay preuve yoo xam ne preuve yu jóge ci ci lii di législation lii di sharia la mu ne nekkut lu boo mi ne doon bañ bal lu ñu doon bëgg la bal sax ku doon def dañ lay dañ lay gërëm te loolu mënta dugg ci li nga xam ne mooy mooy jëw mukk te képp ku bañ mbiru mel noonu yow yaa ngi jikko googu mooy jikko joo xam ne nekkul jikko gu mu ñu rafetlu nekkul jikko goo xam ne jikko juñu ñoo gërëm la bal li war ci jullit gi mooy dafa a kontaan dafa war a bëgg bëgg lii di dëgg daal di feeñ donte dëgg googu daa wuteeg moom wala mu ànd ak ànd moom lan laa bokk ci laay biir ñu yàlla digal ko ci té jëmale ko ci moom jëmale ko ci téere mi jëmale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëmale ko ci diine ji jëmale ko ci borom xam ne jëmale ko ci nga ne mooy mbooleem mbooleem a mbooleem jullit mu tekkee nag lii di leeral njuumte borom xam fekkee ni da ko donte borom xam la bu la jiitu fekkee nag ko teg ci yar teg ko ci na ko war a defee bu ne loolu kon amut lenn loo xam ne dañ ko cay dañ cay ŋàñña dañ koy ŋàñña dañ cay ŋàñña eh, nit ki looloo waral yéen ci salafu saalix ab kàddu doon jib lu baax doon jib jugee ci kenn ñu ne diw moo ko wax ñu ne diw de la mu wax du dëgg wala diw nar na loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci abu abu sanabil ba mu ñëwee dene كذب ابو لسان هابيل في زوهون اب موكو نرنا ني نجاب ني نغا ديفي مير با نيكوت لو لوكو وران ديفي كون فوني باي خيل بن مدينه تي ديلسي موي لي دي شده جيك نعم ولا ديفين كيغا خامني موم لا ني ورا دي اب سوني لا شك دو بوكك مبتدا وايي نك نكا لا نكو ورا ديفي نيكوت نيت كريك موكاي موكاي سانتير وايي لا فو ني تقدير كو تي تي شريعه فو ني خول لان مو يا يوفي نجومتي جيني ban wax la yeyoo njumte gi gi yan kàddu la la yeyoo da nekkut ne bépp njumte rek la ñu war a ak même temps bi ak même kàddu gi donte nag ka ko kañ ci radd moom ab ab ab sunnit la day leeral ne lii di boroom xam-xam yi yu ragal yàlla yi dañoo radd ay wax yu kàddu yoo xam ne kàddu yu feebar la kàddu yu wopp la am daan ne bawoo ko ci yeneeni boroom yi xam-xam noonu imaam ahmed doon raddee radd kii di abu thawr radd ko dëgër ci yenn wax yoo xam ne doon na ko wax te mu gis ne wax ju mu ju wéet la gu wuteeg li nga xam ne mooy mooy mooy dëgg gi la ca des ci li des ci wax ji mu leeral li nga xam ne mooy doon jubluwaay bi ak kañ la mbir ba di doon li nga xam ne mooy laay bi kañ lay doon nag li xam ne mooy jéebaan rek ak ak ngàññi loolu di dellu ci li nga xam ne mooy mooy yéene mooy yéene mooy nit ki loolu la Cheikh Islam Taymiyya di wax naan وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأه وهو مأجور على اجتهاده فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب مدون تسأب برهم مجتهد له مجوم تاني دوهم جوم تقوك جيجل ننكوكو دات مجتهد له شكو ننكو خمي شكينا دفو وخ آه، لين خمني موي حق أمن نياري يون يور اجتهاد أكسوا بغا خمني دلنا شخص أمي أبنغم جومتي أم بن بيون جومتي غم جوم جلال كوي بال دوت دافا جوم اجتهاد مجتهد جوم نيجل كو واي لي دي ليرال واخ جوجو نون اك لا كي دبوك ولا ليرال نمو ووتيك لا دبوك لي دي القران اك سنه لولو وار لا دونت صح موم واخام جي دافا ووتيك لي خان موي موي موي جيفم لي سونو توب سي واخي بروخام نونشي دونجو جوغي موي ني كو جوم ku munti doon dañoo war a leeral njuumte googu noonu leeral njuumte googu tekkiwut ne dañuy mu ca waaja ndax mubtadi la loolu mooy ñaareel tomb bi nga xam ne bëgg naa ci bëgg naa ñoom maa ngi gis audio gudd na dañu bàyyi suba ñu eggale ko ñaareel tomb bi nga xam ne yenn mbokk yi jaxase nañ ko jàpp nañ xëy tontu ab mbokk ci njuumte gu mu def dafay mel da ngay xukm ci ñoom ba dañuy jël ay règle yoo xam dañ la koy imposer te règle yooyu noonu mooy règle suy xukm ci nit ko koy ko koy xool waaye nag sooy radd ay waxam wax ja ngay radd yam ja am na mbokk yoo xam ne jàpp ne sooy radd ak nit bu def de foog nga xool pas-pasam foog nga xool lam ci jublu foog nga xool ndax moom ban contexte la foog nga xool xool xool xool ngir wax ja nga daal koy rafetal déedéet loolu ñu ngi koy defal comme nañuy xokk su ma ñëwoon ci ab benn mbokk fii nii mu defum njuumte ma nekk borom xam te man duma borom xam bëgg a xokk ma ci moom bëgg ñëw ne ah damay xool ndax kii am mubtadi la déedéet la chaque ne foog nga bàyyi xel loolu yëpp mooy la mu gëm contexte bu mu ko waxee fu mu ko waxee lu tax mu wax ko ay jëfam nga daal di ko xukum waaye su fekkee la lay jublu mooy rad waxam ja te xukmoo ci waaja loolu yépp kenn du la wax nga daal di koy nga di koy seet loolu borom xam yi doon di leeral lu bëree bëri ci am ñu bëri wax nañ ko mooy lii di jël li nga xam ne mooy al mufassal nit ka la ngay détaillé xam nga xamlu ko al mujmal loolu ñu koy def su fekkee da ngay xukma ci nit ka waaye su fekkee nag radd wax ji wax ji wax ji baatil la waaye su fekkoon ne wax ji gëmu ko fekkee am na yeneen wax yoo xam ne wax na ko yu wuteeg wax jooju fekkee ay jëfeem wute nag wax jooju loolu du tee wax ja baatil la baatil boobu da nga koo war a da nga koo war a ràdd da waajoo léegi nag waxam jooju mu wax su fekkoon ne kufr la na jënd ko ci lislaam fekkoon ne bidaa la na jënd ko ci sunna su fekkoon ne eh, ndax def na ko faasiq loolu benn nu àtte la yeneen mbir la loolu mooy ñaareelu tomb bi nga xam ne mbokk yu bari suudi nañ ko te jaawale gi ñuy jaawale ñaari mbir ñi moo ko waral mooy radd ci waxu nit ki ak tabdiya nit ki radd ab sunnit ne nañ ko nañ ko dañ ko tabdi di radd waxu nit bokkul ak di ci nekk bokkul ak bi di nga xam ne moom lañuy teg su fekkoon dañuy xukmu ci dañuy xukmu ci ci nit ki mën nañoo yemele fii kon waaj mu def ko première partie ndax am na yeneen tomb yoo xam ne mbokk yu bari feeñ nga seen i wax suñu nañ ko mais soo ko seetantalee bu baax a baax dafay dellu rek ci fàtte gu ñu fàtte li nga xam ne mooy يون يبرم همي دون جار يرد على المخالف دون تبص له فيرا أكتمت ولا ينسي ريري غنكو ينسي ريري غنكو يقدون غريري كون سبنا ينو يندوكو شيء فاهم بابا أك بوي تم فورم بيجا هم نمونا يورد ديكي هم نموي كونك شيء شيء تبص له في نمورا نكر ورا